coow bi am entre Sidi Diop ak Wally Seck ak fans yi en tant que animatrice yow nga nekk ci milieu bi ah du dugg ci biir gaay yi yow noonu noo ko jàngatee. très franchement su ma sañoon euh, coow du am mooy lu ma ko waxoon rek bu ñu ma invité ci benn plateau bu ma demoon euh, bañu ma concurrence mooy li ma ko waxoon waxoon naa ko euh, sama sama concert bi tamit Zeynab ami su ma sañoon yow doo ma raw et pourtant bëgg naa sa avancement mais tey su ma sañoon. may nekk high level mooy li may wax nit da ngay gëm sa bopp nit da nga war a ne man maa war a nekk ci kaw loolu dafay bokk ci loo xamante ni day yokk nit ak ambition ak gëm-gëm la tey ku sañoon ne sama doom moom laa bëgg mu nekk président xam nga mais cela dafa veut pas dire que ñeneen yi yéenewoo leen concurrence boobu dafa war a am ci showbiz bi ndax mooy neexal showbiz bi mais amee avec la manière tey jii bu ñu bëggee ñu ne dañuy jël. suñu musique bi ñu yóbbu ko à l'étranger ñuy gis xuloo xeex mu nekk ci réseaux sociaux te réseaux sociaux mooy loo xamante ni bu xasee ba dugg soit image bu rafet lay doon wala image bu ñaaw boo koy jaayee ji gars yi dugg tàppe pour xool ay information bu ñu gisee ne ñii xuloo la ñuy def ak xeex doo am crédibilité seen kanam doo leen mën a jaay loo xamante ni wala doo leen mën a gondi loo xamante ni tey jii dina la jox cër bu ci war de ce man lu ma ko jàngatee mooy wax naa ko Sidi Diop xale la dafa am ambition il est bien entouré Matar Soubatel maa ngi koy nuyu de passage il est bien entouré ndax Matar il est trop bien comme manager et tout donc je pense pas am na lu mu ci def ma ñëwoon ci côté Wally Seck ma ne Wally Seck dépassé na sax niveau def buzz donc ku nekk nag da nga koy waxal yàlla tax da ngay waxal sa bopp rek te yàlla tax Sidy Diop il a beaucoup de projets et il est bien entouré mais Wally Seck dafa dépassé loolu kon nag problème bi fan la nekk man gisuma ni Sidi la gisuma ni Wally la problème bi man manque laa manque manque ko teg ci ñi nga xamante ni ñoo bëgg créer rek soit. fan si yi. fans yi tamit ci ci showbiz bi la ñu bokk abi fans yi ñooy neexal showbiz yi de parce que bon ku nekk da nga bëgg indi sa touche personnelle fans yi ku nekk day bëgg a wax maa xam maa fekkee maa xam. am na ñoo xamante ni bu ñu leen nettalee sax dañuy mel ni histoire bi ñoom ñoo ko fekkee parce que bëgg nañ ci wax rek donc ñoom lu ma leen wax mooy ñu xoolaat seen entourage bu kenn nangu ne booy yow di nga mën a dépasser waali Wally tamit gëm naa ni du déglu ñu naan ko Sidi Diop moo ngi ñëw pour jël sa place ku nekk yaa ngi def loo xamante ni Wally moo ngi am ay projet international son yi muy def ak ay Chris Brown Sidi Diop tamit noo dama na la staff bu dëgër la am kon xam nga nag ñaan ñooñu kon talante wuñu loolu donc nag ku nekk da nga koy waxal sa jukko rek man je pense pas que ni riir gi yooyu yëpp ci ñoom ñaar la seen côté mais plutôt am na lu làqatu ci ginnaaw lu ñu waxut. te yow xamoo si dara. mais su ma xamoon sax du ma la wax <laughs> waa kii damay laajte rek lu leer xam ma mën naa bañ a xam nga xam rek moo tax ñu sees la rek di dina yaata. <laughs> man xamuma ci dara <laughs> dañ ma fee dooroon ay door laay <laughs> fifi ku sob nga fifi léegi animatrice ñu jékki-jékki gis ko fifi di joué background benn série bu tudd noonu. Mhm. ah nga siy joué rôle boo xamante ne man dama si xuloo ba sonn ne ay waay melu nii. Ah, fifi waaw fifi nan nga def ba joué ah euh, background bi ak euh, fifi daal sob ga daal. Ah. expliqué ñu mu gën a leer pour ñu ñuy seetaan. <laughs> waaw Ami mooy li may wax rek. Ami nit bul yam ci benn métier. tey jii boo yemee ci présentation. média yi bari fi mu dem ba dee métier bu bu deewee. yow sa liggéey yow yow yow yow existé too mais imagine nga cumuler présentation nga cumuler di entreprendre nga cumuler nekk ci production série benn bi bu deewee da ngay dem ci beneen bi da nga fay des man moo tax ma gëm loolu man damay dund aar te yamuma ci loolu nee naa la ki nga xamante ni day liggéey ak ay personnalité yu am doole fii ci dëkk bi ci seen terme de communication ak yeneen affaire ak yeneen affaire genre man dama sob naturellement donc background euh, avant background beneen série laa doon joué mi salle d'attente dama ñëw def casting vite fait ñu jël ma Assane maa ngi koy nuyu de passage ak pap Alé le grand producteur comme j'ai l'habitude de l'appeler euh, background mu nekk production boo xam ne diaspora moo ko def ma nekk ci régisseuse en même temps euh, di ci joué ñu jox ma rôle boo xamante ne ami vraiment non dafa yéeme parce que sénégalais yi am na ñoo xamante ni comprendre ba tey lan mooy rôle man tey buñ ma joxee rôle damay sàcc ci série bi non ni ngeen di sàccee yéen ñëpp dama koy indi ci série bi wane ko <laughs> ku nekk sa méthode sàcc dama koy indi wane ko ci série bi parce que rôle boobu lañ ma jox jour boobu buñ ma joxee na tamit war naa nettali wala war naa def deal dama koy def ba mu ba mu baax te boo xoolee genre rôle yooyu ñooy gën a sonn moom mais nit yi ñoom la ñuy gën a bàyyi xel parce que dañuy bëgg xam suite bi kii bu mu sàccee nan la mujjee bébé si ndax gis na ko wala genre yooyu noonu et tout donc loolu rek moo tax ma dugg ci te di wax ñëpp bu kenn yem ci benn métier. yàlla xam na ko bu ko kenn yam dañu ko jàngal dafa nekk loo xamante ni ñu ngi koy gis période télécentre bu mu amee télécentre gisati nga ko fi. déedéet ah? <laughs> mais dañoo xam te dëgg télécentre dem na. téléphone yi la ñu yor télé nit yi ñoo ngi seetaan télé de mais ñu ci bëri dañuy bàyyi ba guddi ñu dugg ci internet bi xool information yi et lu ñuy gën a dem sans avance donc tout le temps nañuy adapté wu selon monde bi nan lay évoluer ñu anticiper aussi ci li nga xamante ni ñëwagul donc loolu rek moo tax ma dugg ci etu euh, Fifi sa mot de la fin émission bi neex na ak sa ay projet ndax Fifi ah mu ci publicité yi macha allah tubaab fakkaat la <laughs> fifi daal man man daal maa ngi si ginnaaw léegi waa da nga yéeme émission bi neex na bugguma ko fi woon dagg mais xam naa ne amoon temps ñun sax ñun ñëpp amuñu temps mais projet yi fifi yeeg moo de la fin beeg yooyu waaw euh, projet yi ku nekk xam na ni tamit fifi ku ko wax wax fa fa ay dara euh, influenceuse bu mag boobu ñu nekk ci ay liggéey yu mucc ay ñoo ngi wàcc ay production yu dëgër et puis ñoo ngi liggéey ak ay entreprise yoo xamante ni ay entreprise yu gën a mag fii ci Sénégal du ma def pub mais euh, dinañ gis image ci suñuy page Instagram bu fa ay dara ak suñu page TikTok bu fa ay dara également fa ay dara boo ko defee di nga gis ci ñu nekk di ngeen gis fifi nag ci lu doy vraiment lu yéeme et puis di ngeen dégg Fifi tamit ci beneen level di ngeen gis Fifi aussi ci beneen level. mënoo ñu si mënoo ñu may tuuti daal pour ñu ñuy seetaan. Sonia dafa doon wax cat baaxul de Ami <laughs> mais exclusivité bi bi am yow laa koy jox. Ah. mais aussi égal non. non non diaspora moom. baax ah. na waay non mais kontaan tamit également Ami ci ñëw bi nga ñëw ndax tey amoon nga noo doon noo doon mel. Mm-hmm. di nga ne du ma dem seeti sama naataango waaw ndax am na du ñëpp ñoo am courage boobu noonu nga nekk présentatrice damay dem seeti sama morom et dafa nekk loo xamante ne lu nice rafetlu sa liggéey bu baax a baax a baax tu es trop da nga nekk dañoo am jikko boo xamante ni dañ ko bokk mag yow da nga simple en fait tu es tu es naturel et loolu c'est bien continuer comme ça soit naturel nit yi dañ lay bëgg dañ lay apprécier et dafay feeñ ba ci liggéey bi ngay liggéey Jean Paul maa ngi koy nuyu stade bu mag bi kee après di ngeen ko jël kële kële kële di ngeen ko jël après donc mu nekk loo xamante ni moom dama lay wax nga gën cee continuer di nuyu tamit yi nga xamante ne ñoo ñu dala ñuy waa famille foot famille foot ah Ousmane di ko nuyu bu baax sama frère borom famille fut nee naa boo leen bëggee pizza yu neex burger crêpe non balaa ngay dem da ngay yóbbu sa pizza donc Ousmane Fall maa ngi lay bëgg bu baax mon frère di nuyu bu baax Thierno maam Thierno ñoom Marème ah di nuyu sama frère nag sama cousin sama jëkkër Pambay chéri chéri Alima Pambay chéri Alima maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama maam ajaratu maam Fane Ngingue nee naa ko ami boo ñëwee dakaar nga faatu faatu si jóge Kaolack nga xam ne da nga war a ut néeg néeg lu mu dee dee di nga fay soixante-dix mille uh-huh. moom mu jox la néeg ne la doo fay courant doo fay ndox. doo jënd ndekki doo jënd añ doo jënd reer euh, foo toog fu ne war nga ko sant donc sama maam maa ngi ñaanal mu gudd fan loolu ajaratu Fatou Gningue di nuy sama yaay sama chéri papa sama yaay dafa nopp sama yaay sama papa dafa nopp sama yaay donc couple boobu maa ngi leen di ñaanal yàlla la fa leen cat di nuyu sama dama am doom sama mag dafa am doom muy euh, Absa Touré euh, mu maree na ma ko mam bu sa coom donc maa ngi leen di nuyu encore une fois de plus di nuyu suñu caméraman bi a baax maa leen di di sant bu baax encore une fois Babacar diaspora ndax bu mu méttee moo ma may opportunité ba sénégalais yi xam ma Babacar bàyyi naa la ak yàlla jërëjëf. Uh-huh. macha allah mbokk internet yi sama rubrique la woon tout dire ak Fifita sama consoeur nee naa ko yow li ngay wax si man yëpp si yow la nekk ndax nee naa ku la njëkk si néeg bu lëndëm rek moo lay wax na ngay toogee mënoon na ñëw fekk si la nga am kanam ak noo ñu wanee ba du ñu ñemee ñëw di la dékk suñu micro waaye yow nii nga mel. nii nga mel da nga naturel baax oyof yaa ngi si ay conseil yaa ngi wax nit lu baax yaa ngi ñu jàngal ñi dañu war a gëm suñu bopp dañu war a nekk ñefekat kon lépp rekk si yow la dama lay ñaanal ak yow tamit yàlla nga yeggaleeg sa sago parce que liggéey bi ñuy liggéey dafa metti metti na trop trop trop li ma lay wax yow xam nga ko man xam naa ko yeneen animatrices yi may seetaan tam xam nañ ko mais dama leen wax rek courage yàlla baax na di remercier aussi waa famille foot Ousmane ah ñu accueillir ñu ah recevoir ñu te xam nga dama di géwal dama bëgg yooyu Ah. <laughs> ah ñu accueillir ñu ah, jox ñu teraanga yi macha allah dañuy wax damay ñëwaat Ousmane ndax fii moom ah coin bu baax la waaw dañuy ñëwaat ah di remercier ñëpp di leen wax sama émission la woon un ah, tout ak euh, Fifita xaar leen ma si beneen euh, émission ak beneen numéro ak beneen naanaan Fifi daal moo ko yor xale béegi nii moo xew man man ci ginnaaw. <laughs>